da ngay xool annonce lu ñuy wax ak lu ñuy jëfe lu ñuy jëf ak lu ñuy wax ci suuf li ñuy wax ci suuf ak lu ñuy wax ci suuf ci kaw waroo yi day bari ba tax na man de gisuma si jub gisuma si jubbanti waaw alors euh, euh, tey euh, noo jàngatee tolluwaayu démocratie ci Sénégal wax nañ ko sànq si suñu njëlbeen njëlbeen sax wax ndax ah. bu fekkee ne démocratie bi dafa war a sàmmonteex ak yelleefu doomu aadama yow mi jiite réew mi di kilifa ak réew mi war nga def noo xamee ne nii dinga nga féexal waa réew mi waaye doo leen teg euh, euh, nu ñu koy waxate fitna teg fitna bi mooy ci lu baree bari euh, ambulants yi gis nga ni leen def commercant yi gis nga ni ñu leen def wax naa la liggéeykat yi ni ñu leen def euh, dal ci kaw ay euh, taskatu xabaar tere ñi génn loo xam ne tegul fenn ne loolu day wone fi ñu toll ci démocratie man ñi ma gis nii du ñu ay démocrate ñoom doole lañu xam ak fitna te bu ñu bu ñu leen mayee ñu am seen li ñuy wax majorité dictature bu wér hmm. bu sotti moo fi am dictature mu ngi commencé ci xalaat xam nga bu fekkee ne yow sa yoonu politique sa gis-gisu politique mooy sama xalaat mooy bu baax beneen xalaat baaxul te beneen xalaat waru fi jub. pensée unique. pensée ñu koy dawal bi ñu nekkee opposition am seen armée boo xam ne seen liggéey yëpp mooy saaga waaye xupp mënaase yamuñ ci loolu dal ci kaw ay nit taal seeni kër dal ci kaw ay journaliste ay organe de presse. taal seeni oto mais loolu loolu ban ban ban xalaatu démocratie la ñuy génn résultat ci élection loolu xam ne dañ ko baaxoo ñu ne ku fi ti ñu dal sa kaw ku fi 2019 man xawma façon nit boobu façon ban façon la parce que fi ñu ko daan gisee rek ci dictature yi la may fàttali ne amoon na ci temps Hitler ak ah, Mussolini dans les années trente moo euh, gis ngeen fu ñu mujjee àdduna bi musiba naaru laay ñu taal fi guerre boo xamee ne yemul ci seen bopp rek àdduna bi yëpp la la jaxase ñaata million de morts près de quatre-vingts million de morts yàq yi nag kenn mën la nattalal la ndax nit bu fekkee ne gëmul ne moom nit rek la maanaam dafay juum matul bu gëmee ne moom xëy day jege yàlla walla day jege yonent dafa am loo xam ne day yàqu ci jëfam ak ci wax dootoo diglu kenn dootoo naw kenn dootoo goreel kenn dootoo naw lool kenn la nga xalaat mooy li baax yow yaa sell leneen baaxul te ku la ku la diingat baaxul doo nangu sax ku la dingat doo nangu dem assemblée nationale janox sax doo nangu dem commission d'enquête boo xam ne ci ñi ko sooke nga bokk doo nangu bu ñu la ooyee ci yoon nga wuyu doo nangu procès boo amee nga bu doo nangu boo ne di nga génne ay firnde doo doo voilà loolu lañu am ci réew mi. mooy Ousmane loolu la ñu am loolu nag bu amee xam man li may yéem sax du ñiy def loolu man li may yéem mooy ñii topp ci riir mi. te ñenn ñu doon ay borom xam-xam te dootuñ ci àddu fenn xoolal déggatuloo ñi doon def ay ay ay ñaata ay ay dizaine wala centaine d'intellectuels euh, d'universitaires ñu ñu ñu àddu ci lenn loo xam ne mu ngi ci réew mi di dal ci kaw réew mi tey loolu musiba la ci mi réew bu fekkee ne ñiy xalaat di gëstu di ay boroom xam-xam di ay jàngalekat ñu leen di wax intellectuel maanaam ñi xalaat ci cim réew di xeltu ñooy noppi ci yenn yi te démb ñu doon wax ci yenn yi da ngay yéemu ci yàlla. mais dégg nañu société civile bi. ak waaw commencé nañu. waaw fan li tax sax coowal démocratie ak euh, deltu na ginnaaw deltul ginnaaw jug mooy euh, convocation yi. ak yenn arrestation yu mel ni commissaire Keita ak ñeneen ñi nga xam ne woon nañu leen. kon yegg nañ foo xamee ne sax ñii àndoon ak ñoom ci yooyu ñuy ngi commencé fippu. waaye man xam nga ñooñu sax man xaaruma lu bari ci ñoom parce que seen seen parparloo ak seen féete dafa amoon lu mu feesaloon ci jamono yi musiba yi fi amoon waaye ñoo xamee ne seen seen gis-gis ak seen xam-xam ak seen liggéey mooy xeltu gëstu jéem a seet fu dëgg féete ñu seetu ko gëstu ko indi ko tegal ko askan wi ñooñu anuñu waaye amoon na démb ba ñu taal université ñu ne kenn ñépp ñépp noppi kenn kenn waxu ci kenn àddu ci kenn newu ci piip fii mu nekk ni kon ëllëg ñii bu ñu leen joxaatee bu ñu taalee ay nit comme ni ñu defoon ay cocktail molotov sànni ko ci ci biis taal ñaari gune yu jigéen loolu bu amee ëllëg ci façon bu gën a rëy kenn du wax dara te loolu moo ñu yoot faatu kon man li may ñaan mooy man ñaanuma ñu topp ma de waaye li may ñaan mooy nit ñi xalaat ci réew mi fu mu toll tolluwaayam ñi xalaat ci jëf ji bañ a des rek ci wax ji waaye xalaat ci jëf ji ak jëf ji lu muy und lu mu ñu mën a indil ëllëg waa accusation yi amoon na tuuma yu ne dégg nañu teg ko ci nit ki sàcc na ki te xam nga réew bu fekkee ne dafa am fu mu toll ñàkk am fa euh, ki nga dëkkal sax euh, sa voisin bu amee lenn loo xam ne amoo ko sax sa xel day commencé ñaw buñ ne ah, ñi ay sàcc lañu waaw riir bi lu nekk mën na mën na indi lu ne loolu musiba la day yee ci ñi ni sax mbañeel goo xamee ne doo xam fu mu jógee bare day taal te mbañeel googu day raam di dox ba ci suñuy ay doom mañeel googu nag bu ñu ko indee ba ñëw bëgg gouverner noonu yor réew mi noonu ba ku bokkoon fële rek nga ne tam ko dëmm boo amul sax firnde te xaaroo sax ñi war a firndeel firnde nga tam dëmm tuuma tudd ay tur musiba naaru laay loolu du waxuma sax jub man dama wax rek euh, naka laa ko mën a tuddee. maandute parce que waxuma sax kilifa waaye nit day maandu nit day nite mooy loo nangoo nanguloo loo xam ne nanguloo ñu teg la ka bul ko teg sa sa moroom rawatina jullit nag aji ngam yépp sax rawatina di teg tuuma ci koo xame ne boroom kër la way jur la am njaboot ami way jur ami mbokk te loolu mooy réew mi ku nekk si ñun da nga am ay mbokk yoo xam ne doo am sax foo ko foo ko mën a yemale. Hmm. alors ku wax démocratie wax droits humains dafa mel ni ñu ngi def ay jéego foofu parce que euh, adopté nañu keroog. waaw euh, boo xam ne moo créé commission nationale des droits humains mu remplacer comité sénégalais des droits de l'homme bi fi nekkoon. du noonu de. Ah. Eh, du noonu de. naka la xam nga